moom balaa jeex ndax xamoo kañ lay jeex kon mbokki jullit yi yooyu buñ ko xoolee danañ gis ne juróomi xéewal la yoo xam ne juróomi nattu dafa jàkkaarloo ñoom boo jëriñoo ci xéewal gi rek tàbbi nga ca nattu ba jàkkaarloo ak moom kon loolu danañ ko jël benn par benn bu ci nekk ñu taxaw ci ab taxaw seetlu mu doon xutba bii kon eh, jëm ci furasul umr muy furas yi nga xam ne mooy romb nit ki ci ak dundam ay occasion moo xam ay promotion moo xam pour woo ko mën a jox wala ay bunti yiw yoo xam ne dañ koo ubbil nit ki mu war cee jëriñu te bu ci jëriñu day perte loo xam ne lu rëy a rëy rëy rëy mbokki jullit yi bu xoolee tomb bi ci jëkk sa ndaw gi la yonente bi alayhi salaam wax sa ndaw nee na góor góorlul balaa màggat gaa ñëw alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokki jullit yi lu bare bare bari la ñuy déglu ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la doomu aadama yi di jëfandikoo di jottalee ay xabaar wala ñu ci yëgle ay xew-xew muy rajo yeeg télévision yeeg journaux yeeg ñuy publicité di jëfandikoo baata occasion lu bare bare bare bare di wax ne lii de occasion la góorgóorlu leen ba bu mu leen faat walay promotion baat boobu ñu koy jëfandikoo lu bari foo xam ne daal du place am promotion dëgg dëgg dëgg wala occasion bi nga xam ne waree su koo faat mooy bi nga xam ne dafa aju ci dundu doomu aadama ci digganteem ak diineem digganteem ak boroomam mbokki jullit yi dundu dundug jullit daa fees dell dell ak occasion ay bunt yiñ la ubbil yoo xam ne mën nga caa faggoo aw yiw mën nañ ko tuddee noonu bunti yiw dafa fees dell ak yu mel noonu te bunt yooyu yi ñu ubbi boo ci xas romb mënatoo dellowaat gannaaw di ko ubbiwaat bu ci romb rek jàll na ndax ci waxtu la aju te lu bari ci nit ñi loolu duñ ko bàyyi xel bunt yiw da leen di romb di jàll te duñ yëg ne jàll na te bunt yooyu bari na bari goo xam ne ku ci jaarewul ci benn ba fàggu lu baaxal sa ëllëg doo am aw lay fa sa kanam boroom ndax kat am na ñoo xam ne ëllëg ni nu ko sunu boroom tabaraka wa taala nettalee buñ demee ba jàkkaarloog mbugal mi xam ne nag caaxaan wéy na dëgg a des dañ naan rabbana na naamal saalihan gayra alladi kunna naamal yow sunu borom daal liñ lay ñaan mooy nga jëleenu fii delloonu fan nekkoon suñ demee danañ def lu baax loo xam ne wuute na lool ak lan nekkoon lan lañ leen di tontu awalam nuammirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar waaw ndax dañ leen a mayul woon ci aw fan ngeen dund foofee ci ay at loo xam ne ku nar a jub mën nga caa jub su boobaa aw lay amul ndax kat may nañ la fii ci àdduna nga yorum xel yori bët xàmmee lu baax ak lu baaxut ñi may la ci aw fan ak wér gi yaram loo xam ne mën nga ca def lu baax kon lay moom day daal di ñàkk bu boobaa loolu moo tax lañ ca teg rek gannaaw boo xamee ne nee na leen awalam nu ammirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar wa jaakum annadir yemuma ci may leen ak wér gi yaram may leen waxtu waaye yabal naa wootekat mu xupp leen wax leen la baax wax leen la bon bu dee ña daje woon ak yonente ya mooy yonente ya bu dee ñu dajewut ak ñoom mooy ña niitu ca leerug yonent ya muy xam-xam bañ fa bàyyi ngir jottali ko nit ña muy jàngalekat ya ak boroom xam-xam ya kon ñooñu ñépp doon nañ leen waar moo tax la cay tegu rek faduuqu sooy boo loolu ngeen gis muy sawara sooy boo ngeen ñemi ko rek fama lil zalimina min nasir tooñkat moom ak ku dëng kenn du ko dimbali ci waxtu woo xam ne waxtu jaaxle la kon nag ci waxtu la nekk woo xam bu mat a bàyyi xel xadis bu wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na juróoma ngi na nga ci góorgóorlu màng ko profitoo ko balaa yeneen juróom yi ci dese du ñëw ba ca jëkk nee na sa ndaw gi nga nekk gaawal jëkkanteeg moom balaa tëlee ñëw ñaareel ba sa wér gi yaram ji nga am nii gaawal balaa tawata ñëw mi feebar sa koom mii nga am li la yàlla may muy lu tuut lu bari am nga dara nee na gaawal balaa ñàkk a ñëw mu teg ca ne gannaaw boo xamee ne góorgóorlu nga ci sa ndaw góorgóorlu ci sa wér gi yaram góorgóorlu ci sam koom nee jot gi la yàlla may ci tollu ci ndaw lu gën a bari dafa am jot waaye lu bari ci jot yooyu nag day sànkoo bi ca tegu mu ne sa dund gépp nag góorgóorlu jëkkanteeg moom balaa jeex ndax xamoo kañ lay jeex kon mbokk jullit yi yooyu buñ ko xoolee danañ gis ne juróomi xéewal la yoo xam ne juróomi nattu dafa jàkkaarloog ñoom boo jëriñoo ci xéewal gi rek tàbbi nga ca nattu ba jàkkaarloog moom kon loolu danañ ko jël benn par benn bu ci nekk ñu taxaw ci ab taxaw seetlu mu doon xutba bii kon eh, jëm ci furasul umr muy cross yi nga xam ne mooy romb nit ki ci ak dundam ay occasion moo xam ay promotion moo xam tur woo ko mën a jox wala ay bunti yiw yoo xam ne dañ koo ubbil nit ki mu war cee jariñu te bu ci jariñu day perte loo xam ne lu rëy a rëy a rëy mbokki jullit yi bu ñu xoolee tomb bi ci jëkk sa ndaw gi la yonente bi alayhi salaam wax sa ndaw nee na góor góorlul balaa màggat gaa ñëw ku nekk xam na ne ak ndaw xéewal la goo xam ne suñu borom tabaraka wa taala mooy ci jaarale doomu aadama muy yëg kattan ak doole ci mboolem force yi ko yàlla jox kattanu yaram nga kattanu bët ya kattanu nopp ya kattanu xel na lu mu bëgg lu ne rek daanaka yor na kattan bu ko mën a jàppale ci lool ba jamono yim ciy toll sax day woru ndax day jàpp ne daal moom kenn tëlewul dara ko su ko defee bu jubbantikuwut rek force yooyu mu yor te defe ne du jeex mukk xamut si ku ko ko jox bu fekkee xel lu xamul dara ci diine day defe ne lii moom nii rek la dana ko dugal ci ay caaxaan ba mu jeex kon jamono ji nit ki war a góor góor lu war a baax wala jublu diine mooy jamono yi mu toll ci ak ndaw foofu la ko diineen soxlaa fa la war a góorgóorlu fa la war a jube fa la war a wattandikoo lépp loo xam ne it xeetu dëngte la nit ci ak doye di ak suufe ci la tàmbalee bi bi mu nekkee ak ndaw moom lay mujjee itam mooy bu xasee àgg ci mag ba keroog koy nit ñuy tàggoog moom ca bàmmeel ba ci néew doole lay nekk kon tàmbalee na ci néew doole di mujje ak néew doole am lu dox ci diggante bi nag loo xam ne yàlla jox na ko man man su fekkee diggante boobu da ko sànq kon ak dundam lépp da ko loolu moo tax itti ji nit ki war a jox ak ndawam war a jox itti ji mag a mag moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kon bi muy lim juróom yooyu sag ndaw la jiital lu jiitu ngay màggat képp koo xam ne doom nga sa sag ndaw te góor-góorlu woo ci jaamu yàlla perte nga lu rëy loo xam ne kenn mënatu koo delloo si waat perte nga sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbég mi nga xam ne bégaloon na ko doomu aadama yi lim juróom-ñaar ñoo xam ne daf ne bu ëllëgee ba nit ñëpp ñu dekkal leen ñu teew ci seen kanam borom ñu wàcce jant bi ba mu jege nit ñi ñaq bay lab ci seenu ñaq lu metti lu tiis lu doy waar yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dafay indi genn ker boo xam ne bu sedd guy suñ ko mënoon a melal fii ci àdduna da naan dañ ko climatiser ba mu sedd mu ne juróom-ñaari xeet ci doomu aadama yi ñoom lañuy ñuy may keru ñu dugg ci ker googu mu boole ko shaabun nashaa fi ibadatillah ndaw loo xam ne dafa sosu rek jublu jaamu yàlla lépp luy caaxaan rek mu won ko gannaaw kon kooka bokk na ci juróom-ñaar yooyu yi kon ci sànq ak ndawam lu rëy raw na ko foofu loo xam ne ngir mu delloosiwaat ko dana jafe waaye nag ni ma ko waxee bunt yiw yi dañoo bari dafa bari yàlla bunt yim la ubbil la ay ca dafa bari ndax kat juróom-ñaar la lim foofu lim na ko koo xam ne euh, bis booba mooy koo xam ne xolam dafa aju ci jàkka saa bu génnee jàkka ja rek mooy xool kañ la waxtu wa di jotaat lim na ca koo xam ne day joxe fii sabilillah ba noppi di ko sellal maanaam di ko nëb ba ni ko melale sax daf ne la loxo nday joor bay joxe loxo càmmoñ ba sax du ko yëg kooku ak ak nëbb la ak suturaal la lim na ci koo xam ne nekk na fi béréb boo xam ne moo yàlla dong fa nekk mu fàttaliku boroomam fàttaliku yowmal xiyaam ak lu aju ci ay mbiram ay bëtam tuur ay ngooñ nee na kooku ci ña fay toog bis boobu ci la kon buñ la bu uboo ci sa kanam benn occasion ci yooyu bu ne lépp raw na kon yeneen i bunt yu ubbi ko am na kon daal euh, ay bunt yu bare bare bari ubbiku na ci jamono yu ndaw nit ki war naa góorgóorlu bunt yooyu yëpp duñ tëju te fekk jëriñu wut ci benn bu ci nekk ñaareel ba boo xoolee mu ne sa wér gi yaram màngal sa wér gi yaram bala laa feebara dikkal kenn ku nekk xam ne jamono jiñ nekk li fi nekk ci feebar yoo xam ne sax ña jiitu woon mosuñu koo dégg xamuñu ko li faatu kenn xamul nu mu toll ci feebar yi ñuy doxaale di ko sooxaale mooy xëy xëy rek ñu ne ah moom de biig fii la nekkoon di reer fii la nekkoon di waxtaan nangam nangam xëy na faatu yi rayee ci kaw suuf oto yaag accident yaag yëf yoo xam ne ñu njëkk ñi xamuñu kenn xamul nu mu toll kon mooy yi yóbbu aadama doomu aadama tey di ko jëlee ci àdduna ni mu baree tey soree na ak na meloon bu njëkk moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne la sa wér gi yaram gi góor góorlu ci balaa tëlee ñëw loolu mooy sa waxtu mi nga am góor góorlu ba feesal ko ak jaamu yàlla ak sàkku lu lay jëmale kanam ci jaamu yàlla bul bokk mukk ci ñi naan damay xaar ba màgg te fekk yow màgg nga bu yàgg da nga koo yëgu te it xamoo ñaata fan moo la dese fii ci àdduna kon boo toogee naan su ma màggee wala su ma demee ba àgg ci âge sàngam damay bàyyi yi ma nekk yépp jublu ci jaamu yàlla kooku programme la boo xam ne yaa koy jéem a tegal sa bopp te sa borom tàgguwu la moom ci programme bi mu teg ci sa mbir yow tàgguwu la ci te xamoo xamoo kañ ngay génn àdduna xamoo foo koy génne nan nga koy génne yett yooyu muy kañ la ak fan la ak nan la ginnaaw xamoo ci benn yow mënoo teg programme ci sa bopp li nga war a xam daal mooy li baax anamu xaaral ma góorgóorlu ci rek ba ci roma fiy jóge kon loolu mooy yoon kon géewum jëf-jëf ju baax géew bu ubbiku la yaa ngi yor ci wér-gi-yaram loo xam ne mën ngaa def lu baax kon bul sàggan foofu bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy dem ba mbir ma teew nag dara desu du lu génn àdduna mu wóor ko ne jeexal na mu naan ak a neexoon ma doon jóg guddi di julli ak a neexoon ma doon woor ci tàngoor wi ak a neexoon may joxe aw yiw ak a neexoon may woote ci yoonu yàlla wi ak a neexoon may digle lu baax ak a neexoon may tere lu bon aka neexoon ma rafetal jëme ci samay bokk samay waajur samay dëkkandoo yooyu yépp su boobaa ak réccu la goo xam ne du jëriñ daraati nag kon wér-gu-yaram xéewal suñu borom tabaraka borom mooy bi nga yoree sa wér-gu-yaram bi jaamu yàlla su feebar ñëwee nga xam ne wóor na ne feebar bi moo tax mënatoo la nga doon def dañ lay bindal lu toll ne la nga doon am kooku xéewalu suñu borom tabaraka wa bi noonu la ko waxee nee na ida marida al abdu su fekkee ne jaam ba dafa feebar aw saafara wala mu tukki sax ndax ki nekk ci tukki yi bari yu mu doon mën mënatu ko kataba allahu lahu ma kaana yaamalu saxiixan muqiima nee na yàlla da koy bindal ci toyaaba lu toll ne lam doon def ba mu ànd ak wér-gi-yaramam ñi di ko ko fay su fekkee ne dafa tukki itam moo tax mënut a def jaamu yàlla yam doon def suñu borom tabaraka wa taala bindal ko toyaaba ju toll ne jam doon def ba mu nekkee ca këram kon loolu xéewali suñu borom wa taala la mag a mag a mag a mag moo tax shaqiit benn taalibe bu Abdullah ibni Mas'ud nee na benn bis Abdullah ibni Mas'ud dafa feebar mu ñëw di ko yuug maanaam di ko seet si biñ ñëwee di ko seet si muy jooy nee na ñu ne ko ah yow àndandoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feebar di jooy mu ne ah déedéet du feebar bi laay jooy ndax dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam mu ne feebar day far bàkkaar feebar day far bàkkaar kon loolu taxuma di jooy waaye li ma tax di jooy mooy tawat jii ma dal nii bi may dal daa fekkul ma nekk ci ak farlu lool lool lool ci jaamu yàlla ni ma ko bëggee ndax su fekkoon ma nekk ci farlu googu feebar bi ñëw tere ma ko xam naa ne danañ ma bindal lu toll ne la ma nekkoon waaye dafa ñëw fekk ma ci ay fan yoo xam ne demeewuma noona mu wër ma ne lañ may bindal du bari xam nga ne kooku dégg na bu baax a baax a baax diine ji xam na itam waxtu yi romb ban valeur la am fan la toll ci dundu doomu adama ñetteel ba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne rinaaka qabla faqrik nee na jamono yi ngay am dara balaa jamono yi ñàkk ñëw nit nag dana jàppe mu jekki ba mu yàgg mu ne am naa dara di ko yëgle déedéet waaye boo waxtaanee ak sa bopp da nga xam ne am nga dara te am na loo man kenn ku ne it la nga la nga man foofa la liñ sàkku ci yow fa la toll li yunfiq su saati min saati kenn ku ne na joxe lu tolloog lam am moo tax ñuy wax ne benn dërëm mën naa not junniy dërëm kii ñaari dërëm la am joxe na benn bi kële am na fukki junni joxe benn junni borom dërëm bi moo not moo ëpp lu tax mooy genn wàllu alalam ji la jël cinquante pour cent ci alalam la jël joxe ko kenn dafa jël dix pour cent ci alalam joxe moo tax benn dërëm dana not junniy dërëm kon bal ne kii tuuti la joxe tuyaabaam dafa tuuti déedéet suñu borom tabaraka wa taala xoolewut foofa li nga jël ci sa alal joxe ko ak sellaay ba nga ko joxe foofa la suñu borom tabaraka wa taala di xool ci yow moo tax li la yàlla jox lu mat a bàyyi xel la joxe ci la nga ci man te du doon lu lay lor wala muy lor sa njaboot lu dul loolu kat waxtoo ngi ñëw nit ki xam ne moom jeexal na fii jóge na fi alal ji dana tuxoo ci loxoom dellu ci ñeneen ñu ko war a donn muy gaaw ci dénkaane naan nañ ma joxal jiw fulaan ak nañ ma joxal jiw nàngam nañ ma defal nangam loola lu tardé la góorgóorlu ci jamono yi nga koy man ci niñ ko waxee ne li gën ci looy joxe fi sabilillahi mooy jamono yoo xam ne dafa fekk nga ànd ak sa wér gi yaram ànd ak soxla alal ji ngay joxe lool ragal ne yow mi ak ñàkk mën na laa gaar waaye loolu teewul ngay jël di joxe kooku mooy joxe dëgg dëgg dëgg fi te kat li yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne gaawal màng sam koom balaa ñàkk ñëw loolu mën nañ ci déggee ne kat ñàkk a joxe fi te yor àll mën naa tax sax ak ñàkk ñëw mën naa tax ak ñàkk ñëw ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne yàlla bind na ñaari malaaka yoo xam ne kenn ku ci ne daf koo jox genn ñaan goo xam ne moom moo di jaamu yàlla comme nii ñu la sase ci jaamu yàlla ngay jullee ko woor ak aji màkka def lu baax malaaka mi moom dañ koo bind rek ne ko yow sa sikkar guddi ak bëccëg mooy allahumma aati munfiqan xalafa yàlla yàlla na nga jox képp koo xam ne day joxe yàlla képp kuy joxe yàlla na nga ko jox mi ci des lan lay wax lan mooy ak jaamu yàlla yàlla képp ku tëj alalam nanguwut a joxe yàlla na nga ko xañ yàlla képp kuy jox tëj alalam nangu koo joxe yàlla na ko xañ kooku ak ñaanam loolu mooy jaamu yàlla ci loolu ma kon nag yor alal ba noppi tëj ko ñàkk caa dimbalee ñàkk caa jox miskin yi ñàkk caa def fi sabilillah ñàkk caa tabax ay jàkka ñàkk caa def loo xam ne doomu aadama yi ñoo koy jariñoo loolu laa chaque ne lor ju mag la yoo xam ne mi ngi lor boppam te yëgu ko te alal ji nam cay sonneeg nam koy fàggoo lu ci bare bare bare bari du moo koy jëriñoo am na ay nit ñu taxaw ñoo xam ne lañuy xaar rek mooy ñu ne ah moom de wàcc na liggéey wala ruuga rot na wala faatu na bañ tàmbali ñoom di calcul kenn ku nekk lu mu ca war a soxla yaag doom yaag montar ba mu takkoon sax am na ñuy xalaat ne man montar balaa soxla kon àdduna ji ci jëmmi boppam dafa yeewoowut yenn yi faaw nit ki xam ko xam diineem mooy lan ci moom xam àdduna fan la toll akub xeebaayam mu ku àdduna moomu lekk lu tolle tarfatul ayni ci diineem ki amul fiq boobu dana jaar fii ci àdduna ba jàll sonn di liggéey di ñàq lu ne mu daj ko ba dootu ku perte alalam dem ndax amu ci lenn loo xam ne dugal na ko ci bàmmeelam mu di ko xaar man koo bàyyi ay doomu aadama yoo xam bu ko jëlee sax ñoom foofu dañ koy foyee wala ñu moyee ko yàlla wala yaasu sun borom tabaraka wa taala xamal nañu ne jullit bi saa boo xamee ne waxtu faatu dikkal na ko su bokkul ci ña góorgóorlu woon la gën a ñaan boroomam mooy yàlla delloosi ko ngir mu mën a joxe su fekkee ku amoon la ngir mu mën a baax su fekkee dafa sàgganoon moo tax sunu wa taala daf ne wa joxe leen ci li ma leen wërsëgal min qabli an yatiya ahadakum al mawt mu jiitu dee di agsi ci kaw kenn ci yéen fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qarib mu naan ay yàlla soo ma yeexe woon rek tuuti ajalin qarib rek may ma rek benn délai bu gàtt bu doon fukki fan sax wala ay heure sax su boobaa fa assaddaqa ma nangoo joxe sarax wa akun min asaalihin jaamu yàlla yi ma sàggoon rek danaa doon ab jaamu ko yàlla ci diggante boobu lu mu gàtt gàtt waaye yow mi dem li loolu di bëgg a yaa ngi fee nii am nga yaakaar ci ne yaa ngi fi bis bi ba mu jeex amaana sax ëllëg nga nekkaat fi amaana nga dundaat fi sax weer amaana nga dundum at kon de wax dëgg yàlla mbokku jullit amoo amoo lay aw lay ca sa kanam borom kon góorgóorlu rek moo ci des tomb ñeenteel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne faraagaka qabla shughlik yi ngay am temps muy waxtu góorgóorlu ci waxtu woo nga xam da koo am bala laa soxlaa dikkal ndax bu soxla dikkee kër yu bari yow mënoon du ko mën te waxtu dañuy wax ne bu fekkee ne sa waxtu wi feesaloo ko ak yiw waxtu wi mooy feesal boppam ak i caaxaan ak i neen day mujj sax yow ci sa jëmmi bopp ci ay caaxaan ak i neen ci a lay jëm kon sa waxtu jéem góor góorgóorlu bu wut ci téer boo xam ne da nga koy jàng alxuraan di ca mokkal la nga ci mën a mokkal boo mënee mokkal lépp nga mokkal ko ak foo mën a toll ci at góorgóorlu ci loolu sasu alxuraan woo xam ne da koy jàng bis bu set góorgóorlu ba xam-xam sharia nga di ci jàng dara dëgg la nit ki mën na ne mënatumaa dem ci université bi wala école yi di xëy di toog ci banc yi waaye néegi yàlla yi nga xam ne dañ leen a tabax ay jàngukaay nga fa yoo xam ne mënees na faa jàng bokk na ci loolu néegub yàlla bi ngeen nekk ay programme yi xam-xam dana fi taxaw yoo xam ne mbokk yi danañ ko yëgle ku yàlla dogal nga jege fa wala nga am xemmanteef mën faa teew wala nga am loola fa mën a yóbbu programme yi xam-xam yu sax lay doon kenn ku nekk xam na ne eh, njàngum jàkka njàng mu barkeel la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kum mas a jàngal ci jàkka jëla la jàngal mooy njàng moo xam ne amul ñu muy séparé na ñuy gone yeeg mag ñeeg ñii intellectuel lañ ñii jàngu ñi ñëpp ay bokk toog di njëriñ kon léegi yàlla yooyu su fa ay dund taxawee yi ñuy jàngalee lay moom amatul fa nit ka kon fexeel ba sa waxtu nga def ca lu mel noonu dëgg la nit ki léeg-léeg su amul fiq bu baax a baax ci diine su xamul waru garam mën na ne ah man de mag laa rus na maa toog ci ay gone ñu di ma jàngal waaye fekk na loolu ñàkk xam la salmaanul farisi bi muy tuub di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñaa ngi juyoo moom ñaata at la dund ñii nee na ñetti téeméeri at la dund ñii ne ñetti téeméeri at ak juróom fukk waaye juuyoowuñ ci ne daal bi muy ñëw ci yonente bi sallallahu moom weesu na ñaar téeméeri at ñëw taqoog yonente bi alayhi salaatu di jàng ci moom te jàngoon na diine yépp jaar ca waaye teewul ñëw torox sukk fi kanam yonente bi sallallahu alayhi wa mu di ko jàngal tënkuwul ci ay at waaye mi ngi tënku ci nit ki yor loo xam ne soxla nga ko nga fas ci yéene jot jaamoo ko yàlla kon góor ak jigéen mag ak ndaw dañoo war a jëriñu ci xam-xam bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di jàngale ci jàkka te nag waxtu wi ñuy wax noonu maanaam féex gi nga am wala li nga am dara ci waxtu muy temps lu gàtt gàtt soo xasee dem lu responsabilité yi yokk da ngay gën a ñàkk waxtu noonu la mbir yi tëdd moo tax Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu da doon wax ne taallamu qabla an tasuudu wala taallam al ilma qabla an tasuud ci beneen riwaaya yi demal sàkku ji xam-xam bala ngaa gàddu ay responsabilité ndax responsabilité bu ñu ñëwee rek danañ la wàññil lu bare bare bari ci li nga xam ne moom lañ waroon a juróom-benn tomb bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci bi ne màngal sa dund balaa dee ñëw mooy li ma doon juñ sàmm mooy dund gi dañ la ko may wala ñu abal la ko te xamoo liñ la ci abal nu mu toll li nga weesu daal xam nga ne loolu moom dund nga ko waaye li ñëw ci kanam kenn tanewu la ci xamoo nu mu toll ginnaaw xamoo nu mu nag lu ca sës mooy jéem góor góorgóorlu lépp loo xam ne ñëwati na ci waxtu woowu daal bu dee ay wax wax ju baax lay doon bu dee jëf jëf ju baax laa ci fas yéene def bu dee ay jéego yi may seq fas naa yéene day dox jëm ci lu baax fu ma fekkee loo xam ne du noona danaa fexe ba lu ma ca mën loola yam foofa su ma ca mënul ma jóg foofa loolu nit ki mën na ko sase boppam góorgóorlu ci su ko defee ak dundam dara du ci sànk waaye kat bis a ngi ñëw réccu dana am te réccu du jëriñ dara moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na yawma yatadakkaru l insaanu wa anna lahu dikra bis a ngi ñëw boo xam ne nit ki day jekki-jekki rek fàttaliku ne moom ndekete ci nelaw la nekkoon adduna da doon romb di dem lu nekk mu mën mënoon ko cee def te deful dara ci jaamu yàlla moo tax mu ne wa anna lahu koy jëriñati mu ne yaa laytani qaddamtu li xayaati ak a neexoon sama dund gi ma ma yóbbuloo woon loo xam ne dafa may jariñ ëllëg ci àllaaxira yii yëpp bu nu ko suñu borom tabaraka wa taala di nettali ab yeete la boo xam ne nu yëg ne nun noo ngi toll ci béréb boo xam ne ubbeel nañ nu bunt yiw yoo xam ne dañ ko war a jëfe suñ ko jëfewul wala yaasu billaahi bu nuy perte lu bare bare bare te minute bi romb àdduna li ci biiram buñ àndandowoon bëgg koo delloo si mënatuñ koo delloo si ci bu dee démb démb lay tudd ba mu yàgg bëkk démb ba mu yàgg mu dugg ci daaw ba mu yàgg ci at yu yàgg yi di naan des années nangam foofa lay dellu li ci kanam ak séego fi nga toll fexeel ba feesal ko dell ak yiw loolu rek la umul muminin aïcha radiallahu taala anha nee na yonente bi alayhi dee na amul wenn waxtu woo xam ne day romb doomu aadama amul wenn waxtu woo xam ne dana romb doomu aadama te fekk tudd ca yàlla maanaam waxtu wa romb na ba jàll tuddul yàlla néewul allahu akbar néewul astaghfirullah néewul laa ilaha illallah néewul subhanallah tudd kàddu yoo xam ne dafa dellu ci tudd yàlla ci jóge ci xolam nee na lu dul yowmal qiyaam bu dikkee day toog di calcul ne man day pertoon naa heure sàngam ndax romboon na tuddum ci yàlla na commerçant ba di toogee di calcul naan marchandise sàngam seet naa seet seet gisuma lu ma ca am kon dama perte bu boobaa kooku danaan waxtu woowee romb na ma te tudduma ci yàlla kon mbokk jullit yi buntu yiw ubbiku na bari na lool kooru farata kooru ngàtt nga julli farata julli naafi la joxe fi sabilillahi lala sa alal jox loolu lépp ay occasion léegi ba guddi ngay julli fekk doomu aadama yaa ngi nelaw tàllal say loxo sa boroom ñaan ko njariñu àdduna ak alaaxira ñaanal saw askan ñaanal sam réew ñaanal sa mbokki jullit loolu lépp ay occasion yi ubbi la yoo xam li ci nekk ci yow yool kenn xam lu mu toll rafetal jëme ci ñu ñu ñàkk ñi dimbali leen def la nga man ñu miskin yi ak jirim yi ak ñu mel noon taxawu leen rafetal jëme ci ay waajur ak ay bokk rafetal jëme ci ay dëkkandoo gaawe tuub gannaaw boo xam ne njuumte am na wala bàkkaar yooyu yëpp ay bunti yiw yu ubbiku la yoo xam ne mën nga caa dugg tey def ko na nga ko soxla xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne moom lañ dénk ndax yow xam nga rek jullit bu nekk doomu aadama ju ne sax am na ñaari malaayika yoo xam ne dañoo toog kii ci wetu ndeyjooram kii ci wetu càmmooñam kii ci ndeyjoor luy liggéeyam mooy loo def ci tuyaaba moo xam da nga koo wax moo xam da nga koo jëf moo xam da nga koo yéene moo la koy bindal ka ci càmmooñ mooy bind bàkkaar ya moo xam boo wax la moo xam boo jëf la su ko defee yonente bi alayhi nee na ki féete càmmooñ day inna saaxiba shimal ki féete càmmooñ la yarfau alqalama sitta saaat kooku nee na bu nit ki defee ñaawteef day yor xalimaam taxaw lu mat juróom-benni waxtu juróom-benni waxtu di xaar ba xam waa ji dana tuubam déet nee na fa in nadima wastaxfara su fekkee ne réccu na lim defoon jéggalu ko nee na mu daal di sànni xalimaam du bind su toogee ba juróom-benni waxtoom nag nee na mu bind benn bàkkaar kon loolu wax dëgg yàlla occasion bu rëy la ndax borom bi ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuub leen yéen ñëpp la yonent la borom bi tabaraka mën a texe kon jullit bi dafa war sax ci tuub ak istigfaar moo tax yonent danaa jéggalu yàlla ci bis juróom-ñaar fukki yoon beneen bi mu ne lu ma téeméeri yoon dama koy jéggalu yàlla ci bis kon kooku kay xaar juróom-benni waxtu du am fu mu bindee dara ginnaaw noonu la sa jéggalu yàlla bare sa tuub sa dellu sa boroom dogu ci bañ a defati bàkkaar yi kon malaaka ma du am fu mu fu mu la bindalee dara ki nga xam ne moo nekk ci wetu ndeyjoor gi nag soo defee dara rek lu baax lu ne rek mu bind fukk du toog di xaar waxtu wala ñaari li yàlla occasion bu baax loolu kenn mënu ko soo defee lu baax fi ma toog laa la koy bindale fukk soo defee lu bon ma xaar juróom benn waxtu ba xam da nga tuubam déet soo tuubee ñu bañ koo bind sax faf duñ ko mës a bind wax ne dañ koo bindoon ba mu yàgg ñu jéggal ko waaye dañ ko dul bind far mel ni defoo ko kon nag bunt yiw ya ubbiku na jullit bi yow yaa ci des sa diggante mooy mbokki jullit yi nga xam ne lor nga leen mbokki doomu aadama yi nga lor ci sa làmmiñ wala nga lekk seen alal wala nga ñaawal jëme ci ñoom wala bépp xeetu tooñ boo xam ne tooñ nga ko doomu aadama te yaa ngi ci àdduna di dund sam xel yàqoowut am nga occasion dem jéggulu ji kooka wala bu dee luñ koy fay nga fay ko yonente bi sallallahu alayhi wax na ci xadis boo xam ne Buxaari moo ko génne Abu Hurayra nettali na ko mu ne man kaanat indahu mazlamatun li axiihi min irdin aw cheyin falyataxallalhu minhu lyowm képp koo xam ne am nga benn xeetu tooñ boo xam ne danga koo tooñ sa mbokk moo xam ci daram la moo xam ci lu mu mën a doon aw cheyin la wax ak leneen lu mu mën a doon ci daram wala alalam wala yim di ma ko limit nee na falyataxallalhu minhu l na ko jégglu léegi qabla an laa yakuna dinaarun wala dirham nee na lu jiitu bés di ñëw boo xam ne monnaie bañ fay jëfandikoo du caagi ne mooy dërëm ak dinaar mooy foofu xeetu monnaie yi doomu aadama yi jëfandikoo ci xaalis amu fa lan mooy monnaie ba ay xasanaat ak i sayiaat ay bàkkaar ak i tuyaaba loola mooy monnaie ba ñuy jëfandikoo su boobaa nee ki tooñoon nit ñi ba yanut tooñaange yu fees tell mu yóbbaale ko su boobaa fan la ñuy jaar ak moom mooy tuyaabaam ya li ñuy jël di ko jox ñam tooñ yow da ngaa aji woon da ngaa wooroon da ngaa julli woon ah loolu bindaloon lañ ci tuyaaba yu baree baree bari waaye nag da ngaa tooñ jiw sàngam tooñ koo xam ne moom moom vingt pour cent kii ñu ne ko moom moom pour cent kii mu jël cinquante pour cent ñu ne ay tuyaabaam jeex na lu fa sës mooy ñi xool ñam tooñoon seen i bàkkaar di ko indil dangaa tooñoon kii te amatoo tuyaaba yi ñu koy jox kon fogal ci ay bàkkaaram ñu tegal ci say balance noona lañ koy defal defal ba ay balance am fees dell ki ñaaw téef te deseetul dara lu baax wala yaasu billah su boobaa ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca des nee na borom bi day wax ne diri leen ko ci xar kanam bi la ñuy wax muy muy muy diriku yóbbu ko sawal yàlla na yàlla mosal ci loolu noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiq ñu may nu fiq ci diine ak lu dégg ba nu xam waxtu yi nuy romb ak wér-gi-yaram gii mënu jox ak i koom-koom yii mënu jox ak jot yi nga xam ne jox nanu ko nu xam xiima bi mu am muy valeur bi mu am ci sunu dund ban man koo jëriñoo bala noo wuy ci sunu borom tabaraka wa taala yàlla nu yàlla may ay waxtu yu barkeel yoo xam ne day fees dell ak jaamu yàlla te jaamu yàlla yooyu su feesee dell sunu borom tabaraka wa taala nangu ko fulal nu ko tanu sax ci loolu ba keroog ñuy dajeeg moom wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqim salaat